jamono ji ñëpp di wax coronavirus am na ñu am yeneen yeneeni metit yu leen tere nelaw soxna si dëkk fas Mbao mënees na ko boole ci ñooñu lu ëpp juróomi weer muy dund ak cancer du sein. soxna si nag lii bi nga ko dalee ak lii xaw na yàgg daal ndax euh, noo defagul at sax mais war na làq ay sept mois waaw ñun nag dañoo fanawoon taab la. biñu yaakaare ni taab la am na benn du domam bu tok fi ci ngeen rombu ci buntu bi moko jox 16000 euh, francs ne ko demal nga def radio waaw ci la nak dem dantek ci lañ commencer suivre traitement bi waaw biñu bi dantek nak wax deug yalla affaire yi xaw a métti dañuy takalé biñu commencer wax deug yalla doon nañu jox ay analyse ñukoy def ay radio ñukoy def mais mujju gi dañ fa gis ben euh, soxna su bax nañu fii de wax dëgg yàlla tant que ñu ngi lay wax ngay jënd dañ lay gën a wax ngay jënd rek waaw man faju naa ba wér te yii ngeen di def yëpp defuma ko après moo ñu yabal benn mooy fi ma la wax sànq pour ñu dem fa mais biñ fa demee ba léegi daal dara sottiwu ci. ngir xam li daal soxnaam rek jëkkëram génnee na lu ëpp ñaar fukki junni te loxoom jotul ginnaawam jafe-jafe Covid bi tax na ba liggéeyam demeetul noonu. waaye terewul lu ñu ko laaj mu góor góor lu ba génne ko ngir faj soxnaam. metti rek ndax am xam nga as gor moom am na yoo xam ni munu ko waaw am na go as gor ay ay gor lañ rek di taqale nekk ak suñuy doom lu waaye am indi wax dëgg yàlla ñu koy taqale rajo yi ñu jox yëpp noonu lañ koy doxalee ak suñuy am di jàmm mais affaire yi nag dafa dem ba bëgg ëpp loxo waaw loolu tax ñu ko bëgg ut ndimbal waaw ku ñu ci dimbali rek lañ bëgg te yàlla rek tax. li ma bëgg moom mooy mu wér rek yàlla rek tax ku ma mën a dimbali daal boo wañ faj ko ba mu wér ndax maa ngi def ay jéego mais heure boo defee analyse wala rajo boo demee doo fo fekk ki ko jox waaw te da te fii hôpital bi ay trois mois lañ lay jox pour nga xaar te ku yor métit fone naa mënoo xaar deux jours sax surtout trois mois ku yor métit waaw mënul xaar deux jours surtout ma trois mois nag lañ la jox kaa caar fi mu nekk nii nag mënatul te feebaru soxna si laaj na taxaw bu gaaw lu ko mooy musiba mën na cee am soxna si sedd na loolu moom mi wéy ak metit bi maa mi feebar loolu def maa sonal lool sama borom ko def na ci lu nekk lu ne daj na ko ci man mi sax duma nelaw guddi damay fanaanee toog bët set ñu ngi may gis nii fi ma toogee ni fi laay toog feebar bi duma mën a nelaw mu tëddee damay jóg ci lal bi may toog ba nodd fajar ma génn ci biti su ma génnee fiix ma xëy sangu ma sangoo toogaat ci biti bàyyi une heure deux heures ma duggee ci néeg bi sax du ma nelaw yàlla xam na ko may toogee nii lay toogee ba bët si moo tax ma manqué nelaw ba sama bopp bi day metti jàpp sama yuur yi su ma sëggee sax day bëgg a wàdd yàlla xam na daa ñàkk a nelaw su ma ne ku ma ci dimbali te yàlla tax faj ma rek moom laa bëgg te yàlla tax laaju ma ci dara faj ma rek ba ma wër ci sama njaw delluwaat ci samay kanamu doom moom rek laa bëgg fi mu toll damaa sonn damaa nelaw guddi du ma nelaw dara fi ma toog a toog laay toog bu set ñu noddu fajar ma génn ci biti ma génn ci biti toog tuuti sama bu jigéen ne ma yaay kaay ndékk man ko ma lekk fi mu sax lekk du ma ko def damay miir su ma jógee damay miir yàlla xam na ko wax sax mënuma ko instant yi may taqal rek te yàlla tax ma nii ma toog ni sax damay mir ma ni sama doom yi may jàpp ñoo ini indiwaat ci biir ni bi ala xam na ko mënuma dara ku ci jàpp rek nga faj ma rek laa bëgg te yàlla tax waaw xam nga ki bi ñuy ànd ñaw a tax ñu xamante ndax damay ñaw wax dëgg yàlla mu neex ko def ñuy dem ba am ci waaw ndax bu ci ba am rek sama rakala la magam la sama sœur la frère am la waaw lu munti am rek dañ ko war a bokk quoi waaw li nga xam ne nag mooy biir bàmmeel moom kooku yàlla moo koy def doomu aadama bu ci ñëwee nag dañuy xam ne yàlla rek moo mën te moom moo koy tege duñ ci mën dara mais lu munti am lu loolu moom dañ ciy ànd ba dee rek ndax bu doon man la tamit nii may doxalee rek lay doxale waaw. mbokk yi euh, defe naa ni ñun ñoo ko gisandoo muy situation boo xam ni euh, ku ci nekk ci ñun war nga ci mën a natt sa bopp. dama wax ni tey borom alal bu ci yoron sa alal di ko jëf bi wajilaahil karim tey jaamu yàlla ngi di jabot boo xam ne tey soxla na ku ko jàppale soxla na ko dimbali ñaanu lu mu lekk ñaanu lu mu naan ñaanu lu mu faje ay aajoom waaye li mu ñaan rek te bëgg ñu dimbalee ko ko mooy soxnaam si wér ba mën a dellu ci njabootam kon gaañi mu ngi noonu ñu ànd ci ñun ñëpp dimbali ko ci lu waay man li nga xamante ne que moo dal soxna si ku nekk nga natt ko sa bopp xam ne jaboot la yaay la mag la rakk la jigéen la lépp lu ci waay bëgg a def numéro téléphone yooyu ngeen di seen muy daw ci ban écran bi euh, mooy numéro borom këram fu ngeen ko woo ak ci heure bi mu mën a doon dina leen wuyu wala man mi buur su ngeen ma woowee daal mettre en relation ak moom wala ku mu ci soob it nga ñëw ba suñu bureau yi Dakaractu nekk fa la nga xam ne moom mooy sewestu Ouest Foire ku ci nekk rek li nga yéene soxna si te mën ko nga dimbali ko bi waa bi waa Jilal Karim képp koo xamante ne ko mën nga taxawu soxna si ndax mbir mi metti na mbir mi yéeme na te dëgg-dëgg ñoom tamit toqi nañu sonn nañu kon mbokk yi lii lañ leen indiloon fi nga xamante ni que moom mooy euh, ci route de Boune taw la yaaw jaal ngeen àndoon ci ak seen mbokk buur géwél su Dakaractu